mbokk yi ak xarit yi ñu ngi ci deuxième volet tournée bi nu amaloon Fuuta fii nag ñu ngi jaar ISRA fanaay ci seen station de yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey lu jëm ci blé. ñëpp xam nañ importance bi nga xam ne bu lay am na ci dund waa Sénégal diggante mburu yi ciy defar ak pâtes yi loolu waraloon ñu jaar xool variété bu lay tendre ak bu lay yi nga xam ne ISRA sélectionné na ko di ko def liggéey bu am solo ngir mën ko vulgariser en milieu paysan fii léegi ay at boo ko defee sénégalais yi mën a bay bu fii ci Sénégal. Cheikh noo tudd. Amadou Bari wa don ñew fi station Fanaï euh don xol ce essai yi nga def ci le ngay yi ngay yi ngay suivre fi ci blé bi blé bi yeen variété actuellement bon actuellement euh, euh, l'état du Sénégal a voulu euh, 8 variétés mhm. dont 4 tendres 4 variétés blé dur mhm. ah, blé dure et blé tendre mhm. bini euh durée 15 il y a des variétés nga mantene c'est des variétés de trois mois en général. Mhm. les trois mois la ñu la ñu duré quoi. Mhm. au niveau de la station. mun nañu am euh, à l'hectare au niveau de la station quatre tonnes. waaw en milieu paysan paysan en trois tonnes trois cinquante. Mhm. selon les kii waaw mais fii au niveau de la station dañuy def y a des variétés yi c' est de variétés yi nga xamante essais moléculaires a rien. Mhm. c'est des essais d'observation mhm. il y a des parcelles de production par rapport aux variétés c'est des variétés homologuées mhm. on a on a on a duré 15 on a Hamat on a ici aussi euh, Amina Amina c'est actuellement ma fille fi taxaw c'est des variétés yi nga xamante ne 15 3 mois lay def en général trois moo ci hmm. mais kii suñ koy ji bi nan la demee da ko ji da ko wis comme comme dañuy defee ceeb. non c' est semis à sec en général. semis à la semis à sec la. machine a koy semé wala loxo koy semé. fii fii nii loxo lañ koy semé pour l' instant. Hmm. voilà fii semé loxo lañ koy dañuy dañuy après labour. Hmm. dañ koy plan dañ koy plané. après ñu def traçage. Mhm. am nañu fi ay ay yoon yoo xam ñoom lañ tracé. après nak ñu tek variété bu nek ci kii ci parcelle bu ñu ko bëgge ñu tek foofu bo ñëwee selon am na am na six lignes am na trois lignes. mais mom ñi ndox mi nu mu demee par rapport rek soy def ceeb. bon ndox bi fi mom lamdo rek. lamdo rek ngeen di def bëggul ndox bu bëri. bëggul ndox rek bo irrigué tay suba bo ñëwee da ngay ci da ngay da ngay da ngay drainer en général affaire bi bëggul ndox. bëggul ndox. par rapport ak mais ki mom est-ce que dina dem nawet en général du mun du mun dem ki kii période froide bi rek la mun la mun dem quoi période froide bi 3 mois yooyu noonu. Mhm. motax nak nag nañ ko mun combiner ci ceeb bi xam nga ceeb bi en général. ci rotation bi dal nga koy xalaat rotation bi nañ koo def ci ci froide bi xam nga fi mom en général gars yi duñu bay ceeb ci période froide bi. Mhm. maraîchage lañu gëna ki donc cela veut dire que mun nañu ko mun nañ ko substituer play bi par rapport. mais mom li ngi may expliquer ni il faut ngay ñëw tous les jours pour def irrigation bi. non non du tous les jours. Mhm. da ngay irriguer au moins. une semaine. une semaine par par par semaine quoi. une fois par semaine boo demee bu commencé comme instant bii nii mun ngaa décaler kat dix jours par dix jours. Hmm. jërëjëf.